ba mu doon amal démb ca palais de la république moom jiitu réew bu Sénégal di président Bassirou Diomaye Faye def na ci nag ay révélation yu doy waar mu nekk nag ab jano ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy taskatu xabaar yi ndaje moomee nag ay point yu am solo la ci ki nga xamante ne moom mooy njiitu réew bu Sénégal daal di souligné lu ci mel ni li nga xamante ne moo jëm ci contrat pétrole yi fii ci diwaanu Sénégal jamono jile nag président Diomaye Faye jàpp na ne war nañu mën a amal ay négociation ngir fexe nag ba Sénégal gën a gis boppam ci li nga xam xamante ne moom mooy pétrole boobee fexe nag ba ay paaram yokku mu nekk nag ay négociation yoo xamante ne Bassirou Diomaye Faye nee na dinañ ko amal ci diwaanu Sénégal te nag bu yàggul dara dina génn nag janook askan bu Sénégal xamal leen ne nag négociation yi am na lu mu apporter Sénégal maanaam nag Sénégal parce que dina gis boppam bu baax a baax ci li nga xamante ne moom mooy yooyu négociation mu ñeel contrat de pétrole yi ak compagnie contractuelle yi nga xamante ne ñoo nekk fii ci diwaanu Sénégal loolee président Bassirou Diomaye Faye moo ko daal di xamle nee na nag jot na ngir ñu xoolaat li nga xamante ne moom mooy négociation yooyee ndaxte nag yu bëri ci diwaanu Afrique dañu xoolaat naka la ñuy ba gis seen bopp ci li nga xamante ne moom mooy pétrole yi am seeni réew bu fekkee nag ne réew ñoo ko def gis ci seen bopp Sénégal dina def li ni mel mu nekk nag promesse boo xamante ni njiitu réew bu Sénégal daal na koy def nee na nag objectif am jamono jile mooy a gis suñu bopp ci li nga xamante ne moom mooy yooyu négociation démb la ko xamal ñoom ñooy taskatu xabaar yi nee na ne moom mooy ko woon ba ñu amal ay négociation ngir wàññi dund gi waxtaan yu métti jotoon nañ ko sekk ñi nga xamante ne ñoom ñooy importateurs yi nee nañu nag importateurs yi sax dañu bañoon ba dem ci ay plateau de télévision di fësal nag ne ànduñu ci li nga xamante ne moom mooy wàññi boobee ndaxte nag arrangé wu leen maanaam nag dinañ ci nañ fekk ci nguurug Sénégal ci dogal boobee nee na nag noonee lañu ko fas yéene defawaat amal ay négociation ba nguurug Sénégal gis boppam ci li nga xamante ne moom mooy pétrole boobee. ci ndaje moomee la ñuy desandi ba tey démb itam président Bassirou Diomaye na ci ab décret boo xamante ne jàpp na ne président Macky Sall moo ko signé woon nee na nag décret boobee mu ko signé woon ngir nag ñu yokk li nga xamante ne moom mooy ndox mi fii ci diwaanu Sénégal décret boobee sax bu ñu sukkandikoo ci président Bassirou Diomaye Faye nee na woon entrée en vigueur le mars bi ñu dëgmal maanaam maanaam nag ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mars la ñu nag fas woon li nga xamante ne moom mooy njëgum ndox bi fii ci diwaanu Sénégal président Macky Sall moo nag wutoon ay collaborateur ngir amal li ni mel loolee nag daal na koy annulé démb le président Bassirou Diomaye Faye daal di wax li ni mel nee na nag loolee bu ñu bàyyi woon noonu dañu naroon a yokk li nga xamante ne moom mooy njëgum ndox gi nee nag importance su li nga xamante ne moom mooy annulation bi les décret dafa nekk nag loo xamante ne askan bu Sénégal dañuy wéy li seen bopp ci li nga xamante ne moom mooy ndox mi te nag dafa jàpp ne lépp loo xamante ne dafay lor askan bu Sénégal loolee la fas yéene ñëw ngir ànd ci saafara yile déclaration démb la ko nga xamante ne moom mooy njiitu réew bu Sénégal di président Bassirou Diomaye Faye wax gannaaw rek ba muy amal ab janoo ka taskatu xabaar yi fa nga xamante ne moom mooy ca palais de la République jërë ngeen jëf mbokk ñu doon teewlu ci chaîne bi nga xamante ne moom mooy réew mi TV ñu di sant bu baax a baax di leen gërëm di leen wax ne nag ñu toppal toppal leen nag lépp loo xamante ne dafay actualité moo xam fi ci diwaanu Sénégal wala ci bitim réew jërë ngeen